nuyu Cheikh Amadou Bassir ibnu Cheikh Abdoul Khader bu baax ci turu sëriñam di Fall moom Serigne Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko nuyoot ci turu mboolem njabootug maam Cheikh Ibrahima gi waaye di ko nuyu ci mbooleem turu mbooleem taalibe yi di ko jottali am nuyoo boo xam ne mi ngi bàyyikoo ci sëriñam di Fall moom sëñ Modou Mbenda mu jëm ci jëwriñam di Cheikh Modou Mountakha ñaan yàlla sunu borom. gën a yàggal ak dundam ak wéram ba yéene ji mu am ci liggéeyu maamam bii mu def si lu kawe njortom te ànd ko taalibe yépp sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax di li ak di yeesal ak taalibeem ni ko sëriñ bi waxee rek leenu fi indi te bàyyi nu fi mooy ak taalibe rek topp sëriñ tubaa ndax sunu jaamu yàlla mooy topp sëriñ tubaa sëriñ bi wax ne mu ngi soññ boppam di soññ murit yépp képp koo xam ne sa yaakaar génnul sañ tubaa nu xam ne lenn képp moo nu jariñ muy am kilifa ak nangoo dégg ndigal am nañ kilifa gu mat sëkk muy Cheikh Modou Mountakha lim nuy digal lépp di njariñ loolu jaraloon nag gannaaw si nun rekk la jëm mënuñu koo fay kon njukkal liñ ko ameel mooy fas yéene lépp lu nu digal nu sax si waaye lépp lu nu tere bu nu sa jaar bis bii nu dëgmal daal sëriñ baa ngi sàkku ñi dëkk tuubaa te am tawféexu dëkk fi ñu gën a sàmm war ma ji nga xam ne moom moom la dëkk bi yellool gën a sàmm war ma ji nga xam ne moom la nu warloo ak njabootuk sëriñ Touba gi ndax nun noo bàyyi sunu turu maam bàyyi sunu turi bàyyi jël sunu lépp jox ko sëñ tubaa Cheikh Ibra Fall da ko ne woon féetal ak yàlla yow mi ko xam ma féete ak yow man mi la xam kon nag nu delluwaat foofee nga xam ne foofa la nu diggee woon ak sëñ tubaa ñii ñëw it sëriñ baa ngi wax ne képp kuy ñëw na nga indaale pas-pas bu dëgër na nga defaru ba jekk xam ne fii dañ fiy sàkkoo dañ fiy defaroo waaye bu fi kenn indi luy yàq wala luy xajamal di soññ nag njabootuk Cheikh gépp ñu taxaw temm si ni nga xam ne noonu lañ ko daa diggale nu fas yéene lépp luñ daa def rek jëfi ren ji gàcceel jëf yooyu nga xam ne moo ko jiitu di ñaan lu nu fi sàkk ko si màggal gi yàlla nañu ko sëriñ bi defal fan mu gudd ci seex Moodu Muntaxa ak njabootuk sëñ tubaak yépp yàlla mottali seen yéene yépp ñu ngi sant bu baax di tuub di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Dame kon sëñ Mamor bisimilah. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi sant yàlla di musu ci